mbokk yi ñu sant yàlla moom mi ñu may ñu tey jotaay bi di tutela tutela ni ñu koy defee ajuma ju ne euh, di fi dajale ñëpp di fi waxtaanee lépp loo xam ni soxal na réew mi soxal na àdduna bi tey jii ni Penda Faye lañ si àndal Nina la nuyu la ziar. nuyu di la ziara di nuyu ak di ziara téléspectateurs yi ñuy seetaan nuyu ak di ziara gan yi ak naataango yu ñu bokkal plateau bi yëpp. di am mbégte di gisaat Bijou Ngoné di gisaat euh, Paco Jackson si kanam ni ngeen ko gis mi ngi ñëw. aywa ah <laughs> di leen euh, nuyu ñëpp di leen ziar encore une fois. macha allah euh, Mamadou Lamine Ka di leen maa ngi lay ziar professeur Tounkara di nuyu suñu gan yi di ko dooree ci Khalifa Niass ak suñu yeneen gan yi di nuyu itam naataango yi ma bokkal plateau bi di jël nuyoo bi di ko jox oustaz Dramé. séddaleel ma ko. Euh, bu ñu la nuyoo après euh, Khadija donc waa Wadabere yëpp nuyu nañ leen. professeur ñoo ngi lay fay di la nuyu di nuyu mbokk yi naataangoo yi ñu bokkal euh, plateau bi di nuyu suñu gan yi di nuyu tey waa Mauritanie ah spécialement Roissy mu nekk foofu di ñu xamal ni mu ngi toog wala ñoom ñu ngi toog di di seetaan tutela ñoo ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp. Aïssatou Diop Tall moom it di ko wax marhaban di ko nuyu di ko ziar. delloo ziar professeur di nuyu téléspectateur yi nga xamante ni ñooy safoo tout temps di seetaan émission bi quelque que soit heure bu ñu commencé dañuy toog di ñu seetaan macha allah di nuyu suñu gan yi ak particulièrement tonton Ahmed di ko wax na dal ak jàmm fii moom tàmm nañ di ko fi gis xam naa tey waxtaan bi dina gën a neex incha allah ci loolu aussi may def un coucou à Mamiko parce que ci kanam après peut-être dinaa leen wax lu tax. aywa euh, Imam Mouhamed Lamine Dramé asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah professeur ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem gan yi fi teew. di profiter nag di nuyu sunu sëriñ sunu wayjur docteur Ahmed xalifa di ko jaale ci li nga xam ne umma bi yëpp ñoo ko bokk. muy faqidu islam Seydi Mouhamadul Amin. ñaan yàlla mu xare ko aljanna yàlla ndono mu fi bàyyi yàlla na ko ko yàlla sàmmal yaa rabbi amin euh, Bijou Ngoné yow it euh, di la wax euh, welcome back thank you professeur maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan yëpp comme j'ai toujours l'habitude de le dire la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé tout là maa ngi leen di nuyu di nuyu di delloo nuyu bi Nina di fii oustaz daanele rek comme fekk ñu fi woon ñuy jaale suñu kilifa gi nga xamante ne moom moo fi toog aussi di ko jaale euh, kilifa gi fi jóge ndax euh, yàlla dogal na lu mu gàtt gàtt am na lu mu def ci suñu carrière donc euh, ñu koy jaale umma bi yëpp di ko jaalee Sénégal yëpp di ko jaale aussi toute la presse di la wax professeur ñu egg nañ ci jàmm. Ahmed Khalifa Niass di ko nuyu di ko ziar moom jaar gi nga xam ne ñëpp aw nañ si ñun dañ si aw. Euh, di la wax marhaban marhaban jërë ngeen jëf xam ngeen ni xel yeeg xalaat yi ci ci Sénégal ak àdduna yëpp ñàkk ci la nekk ci jamono selbe yi bu daan kasak dañ ko daan misaal ni gaaloo gaal gaal ñaari maaw benn maal damm naa benn maaw damm naa gaal tardé na mooy ñaar ñi ñoo àndoon di dem kenn kii benn maaw bi damm kon gaal gi fokk mu tardé. est-ce que euh, loolu am la ndax euh, yow ak euh, si Lamine Niass comme ni nga ko fàttalee rek yéen ñaar yow moom rek nga am si góor boo xam ne yaa leen bokk ndey ak baay yàlla ko suñu borom dolli leer di nga si ñëwaat léegi Alioune Ndiaye moom lañ si àndal Alioune Ndiaye Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation du commerce et similaire moom mooy seen secrétaire général di la nuyu di Ah, maa ngi lay fay di nuyu kilifa yi fi toog yëpp di ziar sëriñ bi di ko jaale li nga xam ne li waxuma Sénégal rek mais àdduna si yëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. Euh, mu taxawoon taxawaay bu rafet boo xam ne bii jéggi na frontière u Sénégal ñuy ñaan yàlla yàlla yokk leeram. amiin fa mu nekk gënal ko. yow yaay président yow yaay jiite UIS e Union internationale des syndicats des boobu da ngeen am benn euh, benn ndaje. benn conférence boo xam ne da koy amal fii te mboolemu euh, ñu ngeen ko séqal ci Afrique yëpp dañ ci nar teew loolu muy le 15 ak 16 décembre 2018 bi lan nga ñu ci bëggoon baaxee. waaw union internationale bi xëy na ma présenter leen ko d'abord brièvement euh, union internationale des syndicats de travail de l'agriculture de l'alimentation commerce textile et activités similaires. Euh, fusion wu ñaari fédération la yu ñu def en 1990 à Paris euh, yàlla def nag depuis congrès 2011 bi ñu fal ma président ñu def par congrès 2016 ñu reconduire ma pour un deuxième mandat ma vocation union internationale bi nag mooy xeex ak ak yelleef liggéeykatu agro alimentaire mais aussi surtout xeex pour souveraineté alimentaire peuple yi muy en Afrique muy à travers le monde mu am plus de quatre-vingts millions de membre am ñeent ñeenti bureaux régionaux bureau régional Asie bi nekk à New Delhi en Inde bu Amérique yi nekk à la Havane bu Europe nekk à Paris bu Afrique nekk fii Sénégal mu jiite ko aussi. yow bu Afrique nga jiite. mondial bi laa jiite man maay président bi en même temps man maay responsable bureau Afrique. bu bu Afrique bi euh, tey li nga buggoon mu leer si bopp ñëpp lan la. waaw li mu bëggoon ñu xam ko mooy euh, développement Afrique. dafa wékku ci agriculture te agriculture mënoo ko wax Afrique di soofantal l' agriculture familiale parce que mooy li nga xam ne lii mooy support agriculture te loolu moom mooy loo xam ne li mën na permettre Afrique mu atteindre souveraineté alimentaire parce que agro business jógul pour souveraineté alimentaire peuple yi waaye dafa jóg pour fructifier capital pour wut alal ci ndoddal ñi nga xam ne ñi ñooy néew ji doole léegi yéen euh, ren ji est-ce que dafa am euh, conférence dafa am cachet particulier dafa am lenn loo xam ni euh, lu si ne loo leen bëggoon mu leer si bopp ñëpp. waaw cachet particulier bi mooy fanweeri réew ak juróom Afrique danañ fi daje. fédération syndicale mondial dana ko teewe organisation pour l'unité syndicale africaine dana ko teewe danañu waxtaanee li nga xam ne lii mooy situation économique et socialu liggéeykatu agro alimentaire wax aussi ci agriculture Afrique cadre yi li ko dalee ci cadre bu petit employé agriculture yi ñu joxe seen xalaat lan mooy lan moo tax seen euh, Afrique am 52 pour cent des terres arables du monde ba pare famine continuer di fi nekk agriculture bu mënul nourrir la population africaine loolu ñun en tant que liggéeykat danañ ci joxe suñu xalaat joxe ci suñu position waaye nag xeex aussi pour que ne agriculture familiale bi nga xam ne dañ koy soofantal te nga xam ne Afrique moom moo fi nekk ñu gën a xool nu ñu gën a taxawoo ñi nga xam ne ñi ñooy def agriculture familiale. ba yenn yi ñu ci mën a bénéficier wu muy retombé yi di kii seen yem. Euh, message bi ngay jeexale lan waaw message bi may jeexale mooy euh, conférence bi c'est une conférence boo xam ne bii xel xelu ñëpp lañ soxla xalaatu ñëpp lañ soxla parce que nul ne détient le monopole des connaissances nit ñi dañuy mottalante moo tax kenn ku nekk jóge ci àdduna si ñu daje. pendant deux jours ñu réfléchir bu paree génn feuille de route boo xam ne bii union internationale bi loolu mooy doon activité pour l' année 2019 à travers tous les pays africains. Alioune Ndiaye delloo ko njukkal moom moo jiite euh, union internationale des syndicats des travailleurs de l' agriculture de l' alimentation du commerce du textile et similaire ci seen daje boobu ñuy amal fii Ndakaaru 15 ak 16 décembre 2018 euh, euh, Ahmed Khalifa Niass hmm, tey jii. tiis la boo xam ne euh, dal na si kaw ñëpp te dégg nañ yow euh, li nga si wax si euh, sa rakk jooju wuy ji suñu borom tey lan nga lan lan nga bëggoon mu gën a leer si bopp nit ñi. waaw xam nga yëf yi ñetti côté la côté bi mooy góomu xol góomu xol. gaañ gaañu xol maanaam nag exprime naa ko ci ay poème en en yoo xam ne am na fu ma ci tàmbalee ne ko yaa ma jiitu doon ma dàqe ba nga fàddoo laa la xàmmee moo di manam maa di moom maa ko jaaxlee anam moom Sidi Lamine ëllëg danañ mën a génne poème yooyu. ni sama métutu bopp. man ak njaboot gi nga xam ñoom la ma bàyyee beneen bi mooy Sidi l'immensité Sidi Lamine Niass l'immensité c'est une immensité parce que moom c'est monde comme ni ko yàlla waxee indi Ibrahima kaanu ummatan moom dafa nekk umma dafa nekk un homme monde ndax ma ngi ca syndicaliste ya ma ngi ca enseignant ya ma ngi ca sëriñ sa ma ngi ca waarekat ya ma ngi ca journaliste ya ma ngi ca technicien ya ma ngi ca sportif ya ma nga ca littéraire ya ma nga ca entrepreneur ya donc multidimension boobu mu am ko ici au niveau mondial parce que am na ay liggéeyam yoo xam ne ma ngi leen euh, euh, euh, maanaam mag leen ñu nga nekk à partir de la France la ñuy rayonner à travers le monde. mooy deuxième bi. mooy ay liggéeyam yoo xam ne du du yu intellectuel la yu spirituel la mu mokk bokk ci ay instance yu bari yoo xam ne dañuy liggéey ci loolu maanaam àddina bi ñaari nit rek fi ne. ki ñuy jàng. ki ki nga xam ne dañ koy jàng moom ci boppam ak maanaam nit ñi di ko jàng ak ki nga xam ne moom la ñiy jàng di jàng Sidi Lamine dafa bokk ci ñiy jàng di jàng moo tax ma bëgg muy suma bëgg-bëgg di bëgg famille bëgg-bëggu famille bi di bëgg-bëggu population bi mooy dëkk bu mu doon ak lu mu tuuti tuuti te am maire maire ba na fa tudd boulevard Sidi Lamine Niass waxuma Dakar rek boulevard boulevard wax boulevard ndax daf ko mérite boulevard Sidi Lamine Niass si. ci mboolem dëkki Sénégal yi commune bu ne Sénégal waaw ci mboolem dëkk Sénégal yi. Euh, sauf dëkk boo xam ne. ba loolu amee génnuñu taxawuñu métti luñu yëguñu dara ñooñu bokkuñu ci dara. mais Ahmed Khalifa Niass yow tey euh, dégg nañ la nga def ay poème wax lu rafet si Sidi Lamine Niass wax lu baax mais bi muy dund lu tax defoo woon loolu. kuy dund kenn du ko tàgg ndax liggéeyam pareegul mën a yàqu à tout moment. mais seen diggante dafa neexul woon ba bi muy dund ba non euh, c'est pas vrai c'est-à-dire que ñëppay jotee yow jàng alxuraan du yónnant yàlla Moussa yónnant yàlla Aaroona du ma doon wax yónnant yàlla Moussa ne ko doomi ndey sama bul xëcc bul ma xëccee bul xëcc sama sikkim bul ma xëccee sikkim bul ma xëccee bopp bokkuñu ndey ak baay bokkuñu génn yónnant ñaar di ko gérer loolu bu amee ci yónnant loolu mënul nekk un défaut jote bul jaawale jote ak ñàkk a bokk. Hmm. ñëpp mën nañoo jote. Hmm. yow da nga jote ak sa jam hmm. dafa tere ngeen fanaan tere ngeen am doom dafa tere ngeen xew. jote sax bu amul dund amul dund ak jote ñoo ànd Seydina Abubakar toog na julli jiwul. dafa tax mu contre yonent bi yéen ñi jot lii fi il faut que ngeen di ngeen di am dégg gu kowe ah, te itam ma xamal la lenn léegi la fa maître Amadou Sall jóge quatre jours bu PDS bu PDS quatre jours avant mu génn àddina daf ma oo ne ma Sidi Lamine moom ma oo doon wax nu mu yéemu ci article bi nga bind ci Bakka et Makka di wax ne kii dañ ko war a publier ndax c'est un article académique boo xam ne am na recherche may dégg léegi jóge sama kër. est-ce que Aïssata Diop Tall en fait euh, man euh, du ma revenir si ay rapport am ak euh, ki nga xamante ne moo fi bàyyeeku di Sidi Lamine Niass mais dama bëggoon juste mu expliquer ñu tey ji benn affaire bu nga xamante ne wax na ko récemment parce que nee na yal na yéex yal na yéex bu fi jógee nañ ko denc fi ñuy woowee ñàkk ñàgg ñaseen si je mu me trompe pas te tey ku xam tonton Ahmed xam ne witu ñëpp la doo pour moom kase du pour njabootam mën naa wax àdduna yëpp ko boobu tey ji est ñàgg ñaseen boobu noonu dafa am ay ñaseen wala ay taalibe yu nga xamante ne ni nga ni ñuy ñëwee Kaolack foofu noonu di ziyaare noonu la ñuy ñëwee foofu wala noonu noonu ni ñu mënee ñëwee Kaolack ñu ko woon ñëwee Yoff pour ziyaar ki nga xamante ne mooy si Sidi Khadija. professeur di delloo di ko njaal ci ki nga xam ne moom moo dëdd adduna comme defuñu ko ci ci njëlbeen ba mais maintenant question bi nga xam ne moom la ñëpp posé wu ba ba Sidi El Hadj Sidi Lamine Niass génne àdduna mhm. mooy que va devenir Walfadjri ah loolu tam bëggoon nañ ñu indi ñu ci leer parce que moom nekk na koo xam ne je pense que balaa ñooy wax ci yeneen dimension bi yëpp ci wàllum presse. Mhm. la ñëkk ñuy ñëkk a tudd bu ñuy tudd presse rek faaw ñu tudd El Hadj Sidi Lamine Niass donc moom bu fekkee am na ci euh, wàll wala am na loo xam ne euh, xam na ko ci bëggoon nañ mu mu leeral ñu ko. benn bi ba tey par rapport ak euh, li nga xam ne moom mooy génn àdduna Sidi Lamine Niass moom mooy ni dañoo dégg ci presse bi sànq mu ngi doon wax ni parfois taskatu xibaar yi ni ñuy jottalee information yi. Mhm. dañoo war a hauteur par rapport ak euh, ni ñu koy déggee euh, mu mel ni dafa yëkkati ay kàddu ne Sidi Lamine dañ ko faat ah léegi te moom il va venger la mort de son frère loolu bu fekkee dëgg la moom moo ko wax bëggoon nañ également mu indi nañu ci ay leeral beneen bi euh, moom mooy ni wax na ko sànq ci ay waxam ni ku génn kuy dundu kenn du la tagg parce que à tout moment sa liggéey mën na mën na mën na yàqu mi ngi wax ni mu ngi bëgg na ci zone bu nekk wala ci ville bu nekk Euh, ñu def fa benn boulevard boo xam ne dañ koy dédié à Sidi Lamine Niass mais au-delà de ça qu'est-ce qu'il attend du Sénégalais lambda ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon wala ñi nga xam ne Sidi Lamine Niass ñoom la fi nekkaloon la voix des sans voix ndax ba mu génnee àdduna ñëpp loolu la ñu wax ki nga xam ne moo doon waxal ñi nga xam ne seen baat àggul ci kaw moom moo ñoom ñoo ñàkk donc tey au-delà de ça au-delà de boulevard yi ñu ko war a dédié lan lay xaar ci Sénégal pour ñu rendre hommage à à je pense. aywa Nina merci professeur euh, man damay tàmbalee jaale ko ba pare jaale feu Sidy Lamine Niass tous les confrères de Walfadjri teg njaal mi ci loxo Ousmane Sène mi nga xam ne moom a jiitu set si nekk suma suma doyen. bu ñu ci jógee jaale ko sénégalais yëpp nga xamante ne am na si ñu bëri tey ay jirim lañu. ginnaaw li nga xamante ne moom la liggéey Sid Lamine ak li mu doon def ci presse sénégalaise bu ñu waxee dañuy wax pionnier mais au-delà du pionnier dañuy wax l'homme multidimensionnel jaale ko Oustaz Dramé bi nga xamante ne ils avaient des rapports particuliers mm-hmm. bu ma jógee ci loolu dama koy laaj parce que Aïssatou évoqué na ko sànq benn laaj bi may njëkk a laaj monsieur Niass mooy est-ce que réaliser na ne am y a des qui sont fâchés yu la mere. Mhm. vu la position bi nga xamante ne moom nga am ak déclaration yi nga def bi nga ñibbisee avant ñuy denc feu Sidy Lamine Niass. est-ce qu'ils réalisent que les Sénégalais sont fâchés. est-ce que waxoo dëgg déedéet d'accord loolu nga wax dama koy démentir lu dëgg. déedéet xaaral ma yeggali d'accord mais loolu dama koy non non changer cette expression. waaw damay damay laaj. non loolu wax du dëgg changer cette expression di nga ko rectifier. xaaral ma ye ma ma laaj. waaw changer cette non non non bu ko waxee nu la neex. au-delà de ça. Hmm. pourquoi les pourquoi avoir tenu une conférence de presse pour mën a expliquer yenn yi et aujourd'hui comment. comment il compte s'il y des dissensions s'il y des problèmes avec la famille ak ay jarbaatam nan la fas yéene dafe li nga xamante ne moom mooy réunifier famille bi bu dee dafa am ay jafe-jafe ci lu nit ñi lu ñu gis l'autre chose que je voudrais demander par rapport ak Walfadjri parce que professeur Fatou Sow Sarr dafa am proposition bu mu def fii te dañu koy waxaat gis nañu groupe Walfadjri dafa amoon ay problèmes que lu bëri dañu doon wax y des problèmes de finance comment il va falloir comment lui il pense résoudre ce problème est-ce qu'il va laisser le patrimoine aux mains des journalistes qui y sont ou comment il compte résoudre le problème aywa euh, Bijou Ngoné damay xaar mu damay xaar imam waaw euh, professeur euh, man li docteur Ahmed Khalifa wax <coughs> dafa am loo xam ne Sénégal yu bari dañ ko doon wax man ñi ma tase dañu foogoon ne Sidy Lamine dañ koy defar deuil national mm-hmm. comme ni ñu ko defe ne woon Bruno Diatta vraiment man loolu doon naa ko séntu parce que tamit bu nu waxee dëgg euh, population bi mosuñu gis dëj bu mel nii ñu juddoo ba léegi dëj bu mel ni Sid Lamine mosul am en tout cas ñun suñu dund li ñu fekkee peut-être moom xëy na mag yi fekkee nañ li mais dëj bu mel nii du xalifa général du homme politique du président Senghor ak kenn amagu ko fi mhm. te jàpp ma ne keneen dina ko fi am bon man nag euh, bi ma déggee wax Palestine ne dañuy wàcc seen drapeau wax ne dinañ ko maanaam jox teraanga boo xam ne mosuñu ko jox nit. te dëgg-dëgg li mu liggéeyal Sénégal liggéeyu ko Palestine donc ci état bi waroon nañ ko gën a jox gëdd. moo gën ñuy dem di jàlle ji individuellement kii dem ki baax na ah baax na mais Sidi ak ni peuple bi génnee. Mhm. mënoon nañ ko jox lu gën a rëy lii. donc man point boobu ci lay d'accord ak moom xaw ma nag euh, réew mu nekk dëkk bu nekk di nga ko tuddee lii mais gëdd bi ñu ko war a jox nañ ko ko jox. Euh, xaw ma ay rue lañ koy tuddee xaw ma ay monument lañ koy tuddee xaw ma katu taskatu xibaar yi mais Sidy Lamine war na présence ci réew mi dëgg-dëgg war na fi jóge mais war nañu bu ñu jógee suñu ba tegee ci dara loo xam ne daf ñuy fàttali Sidy Lamine bon loolu man loolu laa gëm wax dëgg yàlla loolu laa taseeg Sénégalais yu baree baree baree bari ñu gëm ko bon beneen bi aussi man dama jàpp ne Sidy Lamine réussir na réussir boo xam ne dëgg la ñun ay doomu aadama lañ dañuy ragal ëllëg luy xew mais kii liggéeyam du naax saay parce que liggéey bi dafa tegu ci base yoo xam ne dafa dëppoo ak ni yàlla mooñee nit ci bëgg baax parce que kii ci mbaax la doon dox. dafa def sacrifice yoo xam ne tey lii Nelson Mandela def euh, Afrique du Sud beneen façon la ko Sidy Lamine defee Sénégal. ni ko Thomas Sankara defee fële euh, dëkk bële euh, Burkina Faso beneen façon la ko Sidi Lamine def donte créé wul parti defut leneen mais jàpp naa ne li mu def fii ci réew mi ak ci Afrique ak ci monde bi yëpp barki dem maa gis Égypte ñuy tegaat ay émission yoo xam ne defoon na ko bi mu demee télé réew mi yëpp journalistes yi moo da nga naan mais kii est-ce que Sidi lamin la malheureusement kuy dund dangay am kiiraay bu dox sa diggante ak nit ñi mhm. mais Sénégalais yëpp tey am nañ gàcce ruus nañ mhm. parce que tey lii ñuy wax ci Sidi Lamine mhm. yow da nga naan Sidi Lamine bi moo doon dund dem wala beneen Sidi Lamine la loolu tamit problème la en tout cas man yàlla dimbal na ma mosoon teel naa ko xam teel naa ko xam te xamoon naa ne aussi position yu bëri yu mu doon jël nit ñi comprendre ñu ko woon tey lañ koy doog a comprendre léegi nag ndono bi du ay doomam du Ahmed Khalifa Niass du ñaseen yi mais Sénégal moo ñàkk population bi mooy jirim tey ndono loolu nag tey ñun ñëpp ay Sidi Lamine lañu keroog ni ñu génnee ci peuple bi nit ñi di génn ci mbedd yi dëkk dëkkaan yi di ko teeru moo lay woon ne ndono lool du naax saay incha allah macha allah aywa euh, euh, kilifa gi amee xel fa ñaas euh, Aïssatou Diop Tall dafa njëkk laaj ne yow wax nga ni boo génnee àdduna nañ la denc ñàkk ñaseen pare nga foofu sax fañ la war a denc lu tax loolu ñàgg ñaseen ban signification particulière la am. ñàgg ñaseen di fii la nekk ci Cap-Vert ci Lac mhm. te maa ko créé maa ko sanc c'est une ville sainte. Mhm. yoo xam ne ñaan daf fay nangu yow xam nga fa. Mhm. te man kóllëre ma am ak suuf si may dund. du ma dee romb ko du dem ci beneen suuf ndax sama maam fañ ko defit juddoowu fa. faa juux si. am ak suuf sa kóllëre yonent bi ba mu demee na am fa mu ko am ba mu jotee ci màkk yi taxul mu dellu. lu tax nangu loolu loolu Sidi Lamine. déedéet bañu ma ko Sidi Lamine. doomam Cheikh bi nga xam ne moo ko gënoon a takk ci doom yi donte ne magu ci damaa toog ak moom ak mboolem ñi Sidi Lamine jur. ma ne ko ndax sa baay moo dénkaane loolu mu ne ma déedéet du dénkaaneem sama gis-gis la te wax na ko ci presse bi. Mhm. bu newoon loolu bëgg-bëggam la dañ koy def waaye dama ne gis-gisam la moom xale bi ma ne ko loo tax mu ne maa bëgg bu suma xarit ñëwee ma bëgg ànd ak moom ñu ziyaare son papa au lieu ñu def 500 kilomètres aller retour ñu dem fii ci yoof ma jël sama décision ma jël sama décision ndax man suuluma sama baay dégg naa ñu naan kenn du suul sa baay suul sa baayu morom mais man suuluma sama baay sama baay ba mu gënee àddina Baay Ñas lañ oo mooy rakkam mu ñëw moo jël ndox dayow sang ko defar ko jullee ko jébal ko boromam loolu mooy suñu baax ñun donc dama bëgg ñu dellu si ci ay format premièrement man maa ngi ñaan bépp dëkk boo xam ne dañoo bëgg Sidi Lamine bëgg mu am fa mbedd muñ ko tuddee te maire ba sàggat nañ def sitting parce que peuple bi bëgg nañu Sidi lamin te Sidi lamin loolu jëriñu ko dara mais loolu ñu ko rendre hommage di ko ko fàttali ko pour won seeni doom bu ëllëgee mel leen ni Sidi Lamine. léegi euh, ni naa def laaj lu tax nga euh, tenir conférence de presse pour euh, wax loolu publiquement dama ne. lan nga fi ñu koy yóbbu dañ koy nëbbu dañu nëbbu xuumtoo ne dañu koy yóbbu kaw la déedéet dama ne maanaam xale bi ci boppam nee na ma sama papa nee na ma lépp ci lim xam ne bi yaa ko jàngal man Sidi Lamine Bassine mi mara laa tàmbaleek moom sëriñ bi. Mm-hmm. du ñu morom de du ñu ay seex. màggee naa ko cinq ans. Mm-hmm. te cinq ans yooyu feeñ na ci formation bi. Mm-hmm. jaaral fii bu jaar fi xam nga démb Youssou Ndour ñëw na toog. ma ne ko yaa ngi doon waxaale ak Sidi Lamine pour mu jaay la wal fajri. pour mooy waroon nekk tey TFM. mais daf ma laaj ma dissuadé ko. cent millions la ko jëkk a fay dem ba un milliard ñu ànd man ak moom ak suñu rakk bu jigéen bi Salma ñu nekk lii bi waxtaanee ko te nit ñi xamuñ ne ñun ñu ngi waxtaan mu mu mu suñu réeroo benn jamono. Mm. dañuy waxtaan mais d'accord nañu aussi ne ku nekk ligne ba nga bëgg na nga ca dem man j'ai une ligne boo xam ne dafa correspondre ak benn tempérament. moom am na ligne bu correspondre ak benn tempérament même seex ñaari seex sax maa ngi ñaari seex yi maa leen jur mais euh, ñu léegi ni naa dafa sànq yaa ngi ko doon aatu bi mu koy wax hmm. ni dafa am ñoo xam ne dañu mer si yow taxawaay bi nga am nga ni dafay waxul dëgg ah waxoo dëgg. waaw ne ma diw ak diw c'est pas vrai. non soxna si déglul. soxna si déglul gis nga maa ngi métit bul yokk sama métit. mais loolu nga wax dama ne lu du dëgg. Mhm. loolu nga wax du dëgg xëy na sa xalaat la. mais du dëgg sama xalaat. waaw waaw kay sa xalaat la dëgg. sama xalaat. waaye dama ne sa xalaat la mais du dëgg. c'est pas vrai bul yokk métti ci kaw métti. dee leen respecté tout ñi c'est pas parce que lu leen neex wax ngeen wax lu leen neex loolu du dëgg. su fekkee ne yóbbuwuñu yóbbuwuñu si yóbbuwuñu si leen kaw la guerre civile lay am ci réew mi ndax amul benn force de l'ordre bu mënul téye nit ñi. Mm. dañoo gas bàmmeel bi ñu suul ko boobu newuma fii. Mm-hmm. ñu suul ko nit ñi ñoo taxaw ne du dem ba mujj gi ñuy indi armée pour ñu ñu ñu garder corps bi. Mm. ok nit ñi nangu suñu nangu loolu bu ñu ko nangu loolu kon fekk naa ñu suul ko bu yàgg. Mm-hmm. Mm. waaw mais yow yaa joxe ndigal ne nañu xaar. dama ne bien sûr man maa ne ajjuma. ceeb bañ ma ko waxee ca avion ba avion bi awul ma ne juma bu ñu jullee juma alors da nga waaw pour que ma bàyyi laisser le temps au temps. Mm-hmm. Hmm. léegi nag li nga xam ne moo am importance mooy Sidi Lamine ñetti yëf la am ndonoom ay donoom ñoo ko moom ay jabaram ak i doomam. Hmm. tey jii am na ay doomam yu ne këram am na ay doomam yu nekkul këram. mais ñoom ñëpp ay doomam la ñëpp carte d'identité lañ yore extrait de naissance seen yaay am xaw ma amul benn jiixi jaaxa boo xam ni am na après enterrement bi parce que. non non non non au contraire tout s'est bien passé. c'est même très très bien passé. te ñoo ko laajoon leew nañ seen ñëpp ñëw nañ jaale si ñu ñun ñëpp ñëw nañ jaale kii si lami ñëw nañ sama kër ainsi de suite kon amul ay problème réunification parce que non non non loo mooy xale yi xale yi mhm. xale yi yi nga xam ne miinante wuñ mhm. mais ñoom ñu adam kooku sama mission la man mhm. pour ma dajale leen euh, kii leen mu bañ a am ay ay xëccoo léegi kii dafa laaj euh, Khadija nee na léegi Walf euh, këru liggéeykaay bi nga xam ne Sidy Lamine moom moo ko sàncoon te mu fes si àdduna bi yëpp Euh, Walf lan lan moo nar a nekk ëllëgam. xaw ma ko. yow mii est-ce que. man li ma mën a wax premièrement. mooy man intéressant man pour may gérer Walf. pour nga jënd ko. noonu non intéressant pour nga dugal xaalis ba. non bor yi Walf am ñu. effacé non affaire yi mën na ñàkk a nekk problème. Mm-hmm. mais li am solo mooy man âge bi ma am. bu ma yàlla may dund le 25 décembre. bërse di 26 ma dugg 73e année. Mm. kon man gérer ay entreprise wàcc na ma ndax mënoo liggéey entreprise sax retraité naa bu yàgg ba dem mm-hmm. man côté boobu du li ma intéressé uh-huh, xam naa ne daal société bi mm-hmm. actionnaire unique la dafay tombe dans le capital décès mm-hmm. kooku affaire ñooy doon la ñooy doon nag dañuy yëkkateem dañuy daaneem dañuy jaay dañuy reprendre loolu ñoom rek rek rek la concerne. da nga leen ci ah? waaw lu ma ci man lu ma ci mën ci ndimbal ndimbal laay mën a def. Mm. mais ma je suis pas un récupérateur je n'ai pas à récupérer man dama toll ci station distribution man li ma jot a liggéey maa ngi wut ñu ma ko jox pour ñu liggéey ah, parce que tonton ci sa première sortie nekkatuma di dajale ko que ce soit ni alal nii leneen ci sa ah? première sortie après décès bi danga ne woon bor yi yëpp di nga def sa kéemtulaay kàttan nga fay ko même bu àggee 10 milliards di nga kii non non yow yaa mal interprété non man maa wax kay dee defal naa bu dama ne su bëgg diriger ay entreprise de presse mën naa def OPA ci TFM seen TV ak yéen ñi même bu doon dix milliards te motu leen ko ma fay cash bu ma intéressé woon. mais ça ne m'intéresse pas loolu laa wax. mais xam nga tey ñu bëri euh, mun nañ calme tuuti euh, léegi euh, Ahmed Khalifa Niass xam nga modèle Walf. ñun ñëpp gis nañ ne que dafa am jafe-jafe si tele la boo xam ne par exemple publicité amu si. Mhm. te loolu nekk moteur boo xam ni dafay dawal euh, télé tey modèle boobu nga xam ni Sidy Lamine moom moo ko téye woon ak euh, loxoom sans ay publicité ak yooyu euh, modèle boobu suñu bàyyee noonu fa kër gi dafay tëj yow mi nag nga xam ne yow yaay magam te mën nga si bay waar laaj bi mooy est-ce que fa façon yéene yow taxaw xar sa tànk tubéy ne kër gi du tëj. non xam nga boo demee wul fajiri tey ñi nga xam ne ñoo ñoo ko ŋànk ku toll fii xam ne am na anomalie parce que naka la ñu ne ñoom ils sont fidèles à Sidi Lamine son seul frère bu mbokk ndey ak baay kenn ci ñoom jógee lu fa ñëw sigil ndigaale mel ni Sidi Sidi Lamine amul TFM hmm. def ko collectivement hmm. am na foofa des le moins de qu'on puisse dire c'est le moins qu'on puisse na ñëw jaale la ah ah kon loolu est-ce que duñ nit kon ña fa nekk nekk fa waruñ faa ne kon waruñ faa ne. wala ñoom dañ jàpp ne yaa leen war a dem jaale ji. Ah, man ndax dama leen di jaale ji yéen yéen maa yéen itam na maa ngi leen di jaale. Hmm. te naa dem Touba jaale naa dem Tivaouane jaale ndax fan jàpp ma ne ëppale naa kenn si di la. Hmm. waaye nag wax dëgg yàlla. Ah, mais yow dañ la war jaale. waaw kay très ah, bien loolu laa wax dama ne ñoom. ñi ngi ñoom ñi ngi euh, cultivé loo xam ne. Hmm. kenn xamul fu ñu ko jëlee. bëgg ñëw ci diggante njuru sama yaay ñaari doom yi. ñu bëgg ne ñoom kii lañu àndal mais que xamuñ ko yëguñ ko duñ ko faare duñ duñ duñ ko ne sax sigil ndigaale ak li mu yombe mm-hmm. je crois que loolu itam nit ñi mënuñ cee ànd mm-hmm. kuy defee noonu waruñ laa dégg. xam naa dañuy dañuy waajal ñoom dañuy waajal. pour ñu la ba ñu rafetal quoi. concédons la aywa tamit jàpp ñu ñi nga xamante ne moom nga doon dundee ak Sidy ñoom loolu la ñu jàpp. loolu ñoom seen néew ci. waaw mais loolu loolu tamit dëgg la bijou. xanaa ñoom du naa toog ak diwum Sidy Lamine ak jabaram. Mm-hmm. lu dëgg. xanaa ñoom mënuñoo gën a ñu gën a jege ñoom ñu Sidy Lamine. wala ñu maa jege man xanaa xamule même ñu mujj tax maa ne ko gën a jege. man nag maa bokk ak moom benn biir. Ah ah mhm. euh, lu loolu ci tubaab de la fumisterie. Mhm. jàll leen lii. aywa euh, waaw waxoon naa itam ah ne sama xel dalul. Mhm. ci Sidy Lamine ni mu fi jóge ndax koo xam ne pendant fanweeri at. yaa ngi ñëw di gaaree sa oto fi nga ko daan gaaree di di xëcc frein à bi. kuy wàcc wàcc kuy kuy wàcc kuy yéeg yéeg. ba benn bés nga xëy frein à xëcc oto bi dem say doom yu ndaw nekk ci moo rëmb ki benn miir ñu dee nga dem dégg ko oto bi. lu tax oto bi frein ame bi doxul. y a-t-il eu sabotage y a t euh, mun na nekk défaillance technique. da mën na ne d'accord xam nga. Lamine Gueye nee na xel bala moo rafet bala moo ah, noo rafet ñaaw y mm-hmm. mm-hmm, a un doute oto bi bësu koo def ba bés boobu xale yi ne ci bu ci xale yu nekkuloon on n'a pas de problème mm-hmm. moom nag mu paniqué ndeysaan jël jël jëmbam bu a dégg ko oto boo xam ne day fa wàcc dafay wàcc mbartal dal ci kaw miir bi genn wàllu mur bi dal ci ci kawam loolu mu nekk ko li ma wax ne am na négligence ba loolu amee ba ma fi nekkoon danaa ci taxaw danaa ci taxaw ba mu ba mu wér bañ faj ko yóbbu ko fu ñu war a faj ko dañ ko négligé bàyyi ko muy demaale loxo bu dam tànk bu kii yu kenn xam yoo xam ne dafa kan moo ko négligé non dama ne xam nga nit ko ne xam nga siidi bi muy ñëw këram son fils il muy kër bi muy ñëw këram. nekk ñi nga xam ne ñoom la ñoom am na ñu doon gunge ba muur lu oto def yëpp. Mhm. bi mu yëg escalier moom rek moo yéeg. Mhm. ba ba ba yéeg ci buntu néegam mënu koo ubbi mu mu mu yem foofu. waaw yàlla non dama ne a personne. autour yàlla non dama ne non non non am na sécurité bool fajar am na sécurité nit ko am 68 ans. Mhm. di yéegi escalier war na am même na cercle de gardien. war nag jóg di xool cee cartable cee dara jéem a kii ban ma ñëwee sama kër na am ñu taxaw def nangam mais on dañ ko bàyyi tout seul tout seul. Mmh. avec man ay négligence laa wax. Mmh. ay négligence. somme de négligence. parce que dafa am ñoo xam ne dañ doon gagner seen vie pour isoler ko pour mën koo jekku oh pour yàq li éditoriale am bu baax ba nga xam ne moo taxoon mu nekk numéro un. Mmh. moo tax loolu moo dakkaloo publicité bi nag. mais parce que publicité bi kenn koy joxe. wala ku ku ko joxe moo la tax la moo la jox la tax nga joxe ko soxla ma leen di wax kan la. Mhm. mais professeur. kan moo kan moo taxaw ne wal euh, Walfadjri bu ñu ko joxati publicité. Hmm, kenn mën mënta taxaw wax ko mais sëriñ bi su fekkee ne tey da nga maa invité émission. Hmm. fekk fële mu fële muy saaga Alaaji Ndiaye. Hmm. Euh, da ngay fomm émission bi. da ngay fomm invitation bi. ah butaatu loolu sax waxin la dama bëgg a wax ne. à un moment donné. émission dafa gën a neex ñoom ñooñu am na ñoo xam ne dañu dugg ci sama rakk. isolé ko ak ñëpp. Euh, mën nañu sax sama rakk bu jotee ak man d' accord mais Salma notre sœur unique. qui a élevé tous ses enfants ils l'ont dit. qui les a ba ñu nekk ay médecins ñu nekk leneen même moom dañ koy isolé. Hmm. par rapport à son frère. isolé ko par rapport ak ñeneen même avant mu gaañu ils ont même fait partir des épouses comme sax mais est-ce que ko isolé. pour isolé ko est-ce que yow bokkoo ci ñi ci ànd. dama hmm. xam nga man bu ma ko man bu ma euh, bu ma euh, ñu ñu isolé Sidi Lamine. Hmm. commencé ci man dem ci sœuram. Hmm. sœur unique frère unique. mais loolu y a quelque chose d'im d'impropre. parce que nit ki gis nañu ak nu mën a mel dañ koy bàyyee ki bokk. mais ñi ngay accusé mais ñi ngay accusé ñi nan parce que affaire bi. c'est non dama ne non dama ne ñun ñëpp borom xel lañ. Hmm. te wallaay tunkara hmm. nit ñi mel nañ noo xam ne bu dee bés bu ne ñu ne la yaa sut Abdou yaa sut Abdou yaa sut da nga dem ba ne mais nag ah, xam nga yàlla may kilifa yow ah, j'espère que dépassé ngay affaire dëddale yooyu ngay wax da ngaa mel ni ko ñàkk euh, kii ah, hmm. kon baax na yow bu ma wax loo xam nga li mën a xam ne moom muy la am importance mooy man ni ma mel nii laay mel ba mu ma wujjee sama borom ku may yar new fi ku may changé new fii dama ne su fekkee ne doomu aadama mu bëgg ne ku mbokk benn bi mbokk na rek bàyyi c'est naturel seet ko sa bopp seet ko ci man mhm. seet ko ci sa frère ba nekk Sénégal oto la xaw ma confort oto la xaw lu dëkk. Mm-hmm. ah kay olof dañu ne ku ku loo yàpp euh, bopp réer da ngay làmb sam kaang. Mm. ni nga mel sa frère noonu laa mel kon ok dama bëgg ñu wax ma xam ne dañu installer mon frère pour pouvoir euh, euh, modifier. négativement sa ligne éditoriale qui était la meilleure qui même fait école loolu moo indi manque de publicité bi nga gis ak yeneen ak yeneen Mm-hmm. mu am déficit de communication digganteem ak ñu bari dans la famille les enfants isolés de leur père moi je les gère je les élève mm-hmm. je les nourris parce que c'est de devoir mm-hmm. et je les j'essaie de les réconcilier avec les autres am na ci ndey doom yoo xam ne bi ñu demee léegi ay weer la am na ci ñoo xam ne sax ba léegi seen yedd euh, kiiwul jeexul mais dañ leen a génne ñaari jabar trois mois avant mu dee ngeen bëgg loolu ñu xool ko rek ne c'est normalité affaire oto euh, euh, bi teg ci affaire ñàkk faj gi Sidi Lamine mënoon naa ne cocc. Mhm. parce que amul benn am maladie incapacitante. <coughs> Amel Khalifa Niass. Euh, mais professeur avant muy jeexal. li mu wax ci par rapport ak li nga xamante ne mooy ligne éditoriale bi loolu moo dakk publicité bi mais est-ce que aussi à un moment donné l'État ou les gouvernants n'y ont pas participé hmm. dans la mesure où dañu doon wax ne c'est une presse contre le pouvoir donc soxlawul ñi nga xamante ne ñoom ñooy institution de l'État yi waroon mën di fa yóbbu des parts de publicité comme ni ñu koy defee ailleurs. ñu def ko war damay laaj yow ja jàng nga journalisme. man mhm. journalisme laa jàng. génne waaw d'accord journal base du journalisme lan la. ci ban fànn. base bi rek la base maire du journalisme lan la. Euh, collecter information traiter ko non non non. éthique ak non non non maa leen njëkk def leen dàkk. waaw la maire du journalisme c'est l'observation. oui. Mhm. est-ce que observé nga juróom-benn weer yi ñaata yoon la ci président la république recevoir Sidy la comme un chef d'État. Hmm. never jëlal boobu doon nag wala observé woo ko. waaw mais six mois waaw dama ne su fekkee ne. si six mois la dama lay laaj rek. waaw yow président bi daf lay recevoir comme un chef d'État. oui hmm. d'une part. ne bu leen ko kenn jox publicité d'autre part kon kay mbañ la recevoir wala yow boo xamee loolal nga bañ a dem. defal ndànk rek déglu rek ou bien yëg nga ne moom moo. moo waa ñi sa doole bu la wooyee nga bañ rek malank dewu ko wala donc foofu ngay xoolee foofu mooy observation bi on ne peut pas accuser les gens que accuser comme ça en leer parce que deux choses ne peuvent pas se réunir dégg nga mooy le pied ne peut pas marcher avec la tête en même temps c'est clair dégg nga tànk day nekk suuf bopp nekk ci kaw loolu mooy logique logique mooy lan mooy ana inimitié ci diggante koo xam ne ñu ngi lay recevoir royalement tout le temps. ca fa ñëpp di waxee seeni soxla. mais loolu kon ñun ñun ñun lay jiixi jaaxa di nekk suñu bopp. parce que su fekkee ne ñu ngi lay recevoir royalement mais munoo am publicité dafa am contradiction. non mais xam nga bu dee su fekkee dañu lay recevoir royalement. te yow royalement bu bëgguloo ko parce que ñu bàyyi la nga liggéey moo gën mais danga koy wax. Mhm. man de bu ma bu ma Macky Sall doo recevoir royalement ñu toog dama la koy hey bala ñoo teg café wala meew. sama mbir yi yaa ko yàq defar ko. Mm. yow président ñëw na jaare leen ba gis nañ euh, jaxal bu mu fa indeek yooyu mais euh, gouvernement beeg yooyu kenn gisu leen si suul bi. waaw ah, dama lay laaj est-ce que bu doon si Lamine na jël jaxal boobu. du ko jël déedéet du ko jël du ko jël. damay laajte. il mukk. du ko jël hmm? voilà xam nga yéen a ko wax. il ne l'aurait pas pris. si à chaque fois bu ñuy ziara wala gàmm yëkkati. doomi xale jox leen ñii million deux millions c'est dix millions moom dafa leen ne nañu waxtaan te bu leen waxoo xaalis bu kenn ma jox xaalis. léegi xaalis bi bi leen président jox jël ngeen ko. jaaxal ba mu leen jox. Hmm. ah loolu Mansour Mbaye wax de. mais loolu waree fam la bu def ko. mais mais. man waxuma ne waruñu koo joxe. waxuma ne waruñu koo jël. Hmm. mais dama ne est-ce que bu Sidi Lamine nekkoon dana ko jël. Euh, euh, Amelka yaay jeexal. voilà donc li ma bëggoon wax rek lu tuuti la parce que duma dellu si waat ci question yi nga xam ne moo concerné euh, Sidi Lamine Niass ndax nit moom bu xasee ba génn àdduna rek dañu war a honorer mémoire am. ñaanal ko yàlla. te ci benn poste bu ma def sax man dama bokk si ñi jaar wal Walfadjri Euh, jàngee fa quand bi ma génnee fraîchement de l'école dama def stage Walfadjri mhm, donc j'ai waaye Sidy Lamine Niass gis nu muy doxalee gis ban façon nit la kon man mën naa mën naa ko sax seedeel mhm. mais euh, li ma li ma bëgg a wax rek mooy euh, Sidy Lamine Niass dafa nekkoon koo xam ni Euh, li yàlla santaane woon ci la nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu jàngal ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika moom nag ci ñaareel bi la nekkoon muy fa bi mm-hmm. bu daan gis njombe wala loo xam ne jaarul yoon daf ko doon dénoncé mm-hmm. euh, wone ko buñ ci mënee indi ay saafara itam ñu indi ay saafara kon kooku euh, soldat la woon dafa yoroon mën nañ ko considérer comme Euh, un soldat bi nga xam ne dafa dafa dafa faatu sur le champ de bataille. aywa euh, macha allah euh, solo ci nga ñoo ñu ko isolé woon. Hmm. bi ñu indee jaxalu 20 jox leen ko dañ leen di jël leen ko ndax soxla nañ ko mais man xam nga sama devoir la ma nourrir. Hmm. njiri mi Sidi Lamine ak ki jëtoolam hmm. gannaawam. ma yëkkati suñu rakk jox ko xaalis soxla mooy wax ñaata la xëy na. en tout cas du yees million ne ko yóbbula lii jigéen ñi ñu nourrir ci sama doom yi en attendant fu mu yem ñu jox waaye ba vingt millions yi ñëwee dañoo yëkkati un million dañ ko ne demal nga delloo Aménès un million Macky Sall jox na la vingt million ñu yónnee ñu yónnee ma un million jël vingt millions yële xam nga xam nga loolu si Lamine moom suma ma koo jox mu bañ jël moom su ma ko jox mu ko a jël. kon yow da jàpp ni ñoom waa kër njabootam dañ la. non waxuma njabootam waaye ña leen di. ñi instrumentaliser seen ah, bàyyi. instrumentaliser kon yow 1 million bi dañ la ko delloowaat. waaw dañ ma ko delloo. nga jël a jël ko mais tey jii loolu da nga ko war léegi 1 million bi loo ko def. Euh, du 1 million sax xëy na ah. 1 million bi mm. xam nga dama wax ne man maa waroon nourrir su may doomi rakk. Mm-hmm. loolu dëgg la. <coughs> maa waroon nourrir ay jabaram pendant que ñuy def seen veuvage. Mm-hmm. yaa ci gën a yell sax. mais ñoom ñooñu nga xam ne ñooy les soi-disant les têtes pensantes mais mal pensantes. waaw yi nga xam ne ñoo ko ne bul dem ci ci Ahmed Niass dogal Salma dogal diw dogal diw ñooñu seen bopp ñoo ne comme 20 millions ñëw na nañ delloo Ahmed Niass euh, euh, xaalisam. duñ la ko delloo nga jël ko. ah du may def ah. ma jox la ko. mais nangu baaxul. nangu dama dañ koo ñëw dañ ma koo yónnee ba ci ñu ne ma sa xaalis a ngi nii. Mm-hmm. am nañ 20 millions soxlawuñ sa bopp. Ahmed Khalifa Niass tey ban ban dénkaane ngay jeexale man li may dénkaane mooy Sidi Lamine Niass ñi four in one la ñeenti yëf ci benn nit. nitu opinion la borom philosophie la. c'est un saint homme c'est un homme saint wàlliyu la pire. Mm-hmm. wàlliyu bépp nit boo xam ne dafa sellal boppam ci kabaayiral ismi tey jaamu boroom takkook alxuraan di naafila di saraxe di jox ay nit ñuy liggéey foo jaar yàlla def la wàlliyu mm-hmm. loolu rek mooy bunt bi mm-hmm. te jaar na ci waxuma ne donn na ko mais liggéey na ko alaaji euh, euh, Sidi Lamine tey yéeg na ci darajaay maam alaaji Abdoulaye ñas ak Seydi Hadji Malick ak ñu mel ni moomu bokkatul ci xale yi te loolu ñàngat la pour ñu wane ne ba tey ñu ne suñu ne ba tey ci kaw mi ci kaw te yoonuy jëm ci kaw mi ngi fii est euh, delloo jukkal amee xarala dafa am benn xaaral yi bu ñuy def léegi ak euh, Babacar Karajo Diagne balaa ñu dikkaat bi di tuute la